waaw xanaa di njëkkee rek fi nga xamante ne ni fi ngeen daanelee par rapport ak la communication ak euh, la presse role bi moo am de façon générale. Mm-hmm. ñun euh, jàngat bu ñu ci def moom mooy dañuy faral di wax ni ni par rapport ak lépp luy presse en quatrième pouvoir la euh, au niveau des médias ak message yi nga xam ne dañ ko war a véhiculer pour la population donc ñun ci suñu jàngat bu ñu def mooy dafa xamante ne ni formation bu ñu ko ko boo boo demee ba terminer sa cursus. Mm-hmm. bu commencer liggéey. tey lu ñu mën a sante yàlla Sénégal mooy am na une prolifération média yi loolu lu baax la mun nañu wax nit ñi mun nañu natt ni foofu am na ci liberté d'expression comme li ñu koy waxee waaye fu am prolifération de média rek compétition day bëri concurrence dafay bëri et ñun li nga xamante ne ni moom la ñu gis extérieur mooy day am yeneen kuréel yoo xamante ne ni à la formation ak l'expérience bi nga xam ne ñu ngi koy dund ci kenn ku ci nekk maison bi nga nekk mais day am yeneen kuréel yoo xam ne dañuy def ay symposium ay pour di gën a ak di xool enjeu yi nga xamante ne ni moom moo nekk ci jamono ci mm-hmm. wax ngeen ko fi réseaux sociaux yi wax ngeen fi information yi populisme bi lépp li nga xamante ne ni tey day permettre mu indi qualité ci liggéey bu ñuy def parce que volume bi baax na quantité bi tey boo xoolee ñun bu ñuy wax parce que man Luxembourg laa dëkk foofu laay liggéeyee mais euh, dañuy ubbeeku ci li nga xamante ne moom moo xew ci Afrique wala moom moo xew ci monde bi mais dañuy faral di wax ni Sénégal dëkk la boo xamante ne ni dañ koy méngaleeg yenn saay ci yenn fànni surtout ci wàllu communication. dañ koy mhm. méngaleeg occidentaux yi parce que am na fi liberté boo xamante ne ni bu waay ubbi noo ko def facilement et mën na ci jàllale aussi ay messages mais li ciy des. Mhm. moom mooy kuréel yooyu nga xamante ni dinañ mën a yegg ci benn qualité ak tri. bi nga xamante ni traitement d' information dinañ ko mën a def moo tax ma ciy rafetlu euh, responsabilité bi nga xamante ne ni jox na mu koy doxal pour di gën a yeesal mm-hmm. euh, ni nga xamante ne ni métier bi noonu la nar a doxee mm-hmm.